xibaaru biti réew yi dañu koy dooree ak réewum Libi daje am ca diggante Bachar Abdar ak njiitu réewum Égypte di Abdou Fattah al-Sisi ñu ko doon amale nag ca Caire moom Bachar Abdar nag nekk ko am doole loolu rawatina nag cong yi nga xam ne nag dañu koy faral di amal bu mujj bi nag jotoon na faat lu toll ci téeméer ak ñaar ak benn ci diiru fukki fan rek bu ñu sukkandikoo ci OMS ñoom ñaari kilifa yi nag ponk yi ñuy waxtaane bokk na ca jafe yi nga xam ne nag moo am Libi ak yeneen i ponk yoo xam ne dana soxal ñaari réew ya démb réew Mali ndawi dogoon ya ak pël ya boole nañu seeni doole ngir xeex fitna ya fay am ginnaaw fitna ya nga xam ne nag moo am ca réew ma a mag kuréelu dogoon yi bu dee pël yi nga xam ne nag jiite woon ca ndaje ma kàddu messal bari yi ngay xam ne nag mbir ya dinañu ko gën a yaatal ba kilifay aada jot ca waaye tam ci yëngu yi nga xam ne nag fas nañu ko amal ci ay bés yi nu dët mala dinañ ci leeral askan bi lu bari Demba Niger Boko Haram amalaat fa ak congu ca fanuy wax Jafa Jafa nag nekk ville bu mag boo xam ne 2010 ba léegi cong ya ma nga fay gën di dar bi yoon nag ay nit ñu gànnaayu ñoo song songu caserne gendarmerie ba gannaaw weccee sox yi nga xam ne jot nañu ko fa amal ñoom way song ya dañoo mujj di jëfandikoo ay ceinture explosive ci noone sax ca la songe benn këru gendarme mu jot faa jàpp ay otage bu sukkandikoo ci secrétaire général bu gouverneur bu Jafa ñu jeexale réewum France dina yëkkati kàddu suba bu juróom-ñetti waxtu jotee bu ñu sukkandikoo nag ci bataaxal bu yëgle boo xam ne bàyyeekoo ca pare ba bari na nag ay ponk yu bari yoo xam ne ña ngi ko cay xaar fii ak jëmale ca lu nu mel waaye nag lépp loo xam ne jëm na ci wàllu tolérance fiscale dina ca fës jërë ngeen jëf mbokk yi li leen indiloon ci xibaari bitim réew yi